inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim lima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalib yi su ngeen déggee xasida yooyu da ngeen xam ne am na luy bëgg a xew ana luy bëgg xew lu mu doon moo di magal bu daaru salaam xam ne waa daay waa daayira daaru bi nekk Paris dañ koy amal at mu nekk ren ñetteelu édition bi moom lañuy ñuy waajal ñu war ko jàpp kañ fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2019 incha allah fii ci Paris ci teewaayu ñan teewaayu Serigne Amidou Mbacké ak sang bu baax ba ca Daaru Salaam muy Serigne Cheikh Anta borom gaawaan ñu ñaan yàlla yàlla ci yàlla yóbbu ci jàmm muy guddi goo xam ne nag guddi gu mat a bàyyi xel la ndax xam nga ren dañ koo yaatal ndax dañ ko tudde ku baax ku tedd muy Serigne Mouhamadou Mamoun Serigne Mouhamadou Mamoun moom i nag am na ko xam ne kii incha allah mooy waxtaan ci ci ci ak dundam muy kan sëriñ Cheikhouna Mbacké moom si Mudu Abib moo ci waxtaan incha allah ko defee sëriñ Bay gis la itam dana waxtaan ci dundub maam Cheikh Anta um, nga xam ne mooy doon borom guddi gi. gannaaw nga xam ne nag maam Anta guddee moom la ñuy màggal ñu ngi ci woo ñëpp bépp taalibe góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwunu kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn xam naa du ma guddal wax ji waaye li may def mooy damay jox kaddu gi rek euh, ki nga xam ne mooy sëriñ Mbacké Ndaw su ko defee moom tamit moom waa daayira yi bu noppee daan jox kaddu gi incha allahu soxna bu noppee daan jox kaddu gi ki nga xam ne nag kilifa jotaay bi eh, di sëñ Amidou su ko defee mu tëj jotaay bi. jërëjëf Baye Abdoulahi noonu nga ko waxee noonu rek la ñoo ngi woo mboole seen daayira yi nga xam ne ñoo nekk Île de France wuñ kenn bàyyiwuñ fenn waaye nag ñu ngi woo li ko tàmbalee ci waa kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci waa kër Cheikh Mouhamadul Mourtala bu fekkente ne wàllu cheikh yi li ko tàmbalee ci borom Daarul Muxti ak euh, borom borom saam ba ci waa kër Cheikh Massamba fàttewuñ kenn waaye rawatina nag waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina ñoo ngi leen ci woo bés bi seen bés di woo suñu mbokki tiijaan yi ci dëkk bi yëpp di woo mbokki xaadir yi di woo mbokki laayeen yi di woo mboole seen jullit ñi nga xamante ne ni ñu ngi ci Île de France ak Europe gépp rawatina ñi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jërë ngeen jëf noo ngi woo mbokki taalibe yëpp di leen fàttali bés bi ni ko Baye Ablaye waxee la 14 septembre incha allah ca Touba Aulnay. comme ni ko sëñ Mbacke waxee rek ñu ngi woo jullit yëpp suñu màggal gi ñuy organiser le 14 septembre incha allah di ci woo sama mbokk jigéen yëpp nag bàyyiwuma kenn jiital ci daayira daa euh, Maam Jaara Buso suñu jiital Fàccaam daayira Nooru Daareeni suñu jiital Soxla Galo Dieng ak suñu salaam suñ jiitalal soxna Ami Ndiaye daayira sëñ Fàllu daayira yëpp bàyyi ñu kenn daayira sëñ Abdou Xaada bàyyi ñu benn daayira waa kër sëñ Abdou Laat maa ngi woo sama bopp jigéen yëpp yëpp yëpp di leen woo ci ci liggéey bi di woo ci euh, màggal bi ku dégg sama kàddu nag mooy sa invitation ñëpp lañ ko jégal bàyyiwuñu kenn mbokku xaajir yi tiijaan yi laayeen yi ñëpp la ñuy yëgal ñu kenn. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yoon gisee jataay bi xam ne am na bis bu mag bu jub si muy bis bi njëkk ci yoonu murit bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba njëkk a joxe ndigal ñu koy taxawee muy màggalu Salaam di bis bi xam ne Serigne Touba daana wax ne lu murit yi am ci moom ci bis bi dañ ko ame loolu ko taxawee fii ci dëkk bi di Touba Paris. le 14 septembre incha allahu taala di ci woo képp ku naan ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu an muhammad rasulullah ñu koy def ci ndigalu sëriñ Muntaxa Bachir mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides yàlla na mi nga xam ne mooy xalifa borom gaawaan waaye ci kilifteefu sëriñ Jili Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Modou Mamoun ñuy woo mboolem daayira bu nekk ci Île de France bi waaye mboolem daayira boo xam ne nekk na ci biir France di ci woo fédération daayira Daaru Salaam bu Italie ci njiital sëñ Mbàkke Tambédou di ci woo bu Marseille ci njiital euh, soxna Aïda Ndiaye ci woo waa Niès ci njiital sëriñ Moustapha Diakhané di ci woo waa Touba Bordeaux di ci woo waa Touba Orléans di ci woo mboolem fu waa Daaru Salaam nekk ci France ak ci Europe ñu koy def ci ndigal ak ci kilifteef ak ci teewaayu sëriñ Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ mu doqee waaye ki nga xam ne mooy euh, euh, porte parole bu Daaru Salaam moo war a ñëw président màggal gi ànd ak délégation bu mag bu jógee Daaru Salaam ñu ngi ko ci woo bu mboolem euh, kilifa yi diine yi nekk ci dëkk bi rawat na suñu kilifa sëriñ Moxtaar Mbacke moom sëriñ Astako moom sëriñ Daam moom maam Cheikh waaye di ci woo képp ku sant Mbàkke ak képp koo xam ne am nga cër ci yoonu murit te nekk ci dëkk bi wala nga nekk Europe wala nga nekk fépp ci monde bi di ci woo tamit mboolem autorité consulaire yi nekk ci dëkk bi waaye waaye corps diplomatique bi ak autorité administrative yi xam ne ñoo nekk ci Paris kon bis bàyyi noonu yàlla nañu ci suñu borom àgg la jàmm. mbokk yi nag woote baa ngoog jëm ci màggalu Daaru Salaam gi. waaye xam ngeen ne programme ba bu ñu xëyee bu 9h jotee daañu dem ca saal ba ah di fa jàng alxuraan incha allahu ba julli tisbaar dal di berne tàmbali njàngum xasida mi ak sikar ak kuréel ba nu julli ak su ko defee nag kilifa yi door a ñëw ñu daal di tàmbali soobu ci liggéey bi wéyal njàngum xasida mi eh, ñuy wax nag Serigne Sidi Diaye mi nga xam ne yàlla dogal na mooy fanaanoo guddi gi. moo bokk bokk bokk yi nga xam ne ñoo ko jàng jàppale yëpp ci wàllu xasida képp ku jàngkatub xasida waa Daaru Salaam ñi ngi lay woo ci moom mooy xam naka def ak jàngkat yi ndax moom mooy fanaane guddi gi bu ko yàlla dogalee boo xamante ni bii con maanaam waxtaani diine yi jeex na conférence bi def ci am seexante jeex na dana jël dana jël na micro bi mook yi fanaane ba 77 bokk yi loolu mooy euh, woote bi nga xam ne moom la waa Daaru Salaam doon woote ñu ñaan yàlla yàlla ci yàlla yóbbu ci jàmm yàlla yàlla defal leen jàmm ñu dem ci ak bisimilah rahmaani rahiim jeexale ko ak alhamdulilah rabbil alamin te yàlla nañ ko yàgg a woote ñu ñaanal mboolem sang yi nga xam ne ñooy sangi daaru salaam yàlla na yàlla jàppale leen ci dara imaam Cheikh Anta asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë ma daaram am ilimaan gàlliwuloo ci maaram